ci walum remboursement bi nak dañuy rek tamit que DER bi biñ ko ak euh, dafa fekk di jël vitesse de croisière dañu dugg ci Covid Covid bi jàll ñu dugg ci problème mu guerre russo-ukrainienne ak problème yu baré yo xamanteni tay ji képp kuy kuy liggéey nek ci entrepreneuriat di nga xam liñ lay wax. mais ñu né tay ji depuis depuis bo xolé 2022 fin 2022 ba tay dañu tegaat lalaat stratégie bi ñuy woyé de remboursement de recouvrement té ci kaw lolu ci lan lañ ko lal ci gëna informer nit ñi. gën leen a sensibiliser te tey jii am nañ ci nag euh, am nañ ci satisfaction bu bare am nañ ci satisfaction bu bare parce que globalement taux bi buñ ko jëlé yépp ak projet yu gudd yi nga xamante ni bokkul ak nano crédit bi ñi ngi tollu ci ay plus de toll nañ ci 40 suñu objectif ci 2024 bi nak moy yegg 50 waye cent nano crédit bi nak mom machallah ndax nano crédit bi moom romb na fofu yépp ndax lutax ndax jigéen yi wala groupement yi wala fétière yi dañuy rembourser avant même sen app jot dañuy ñëw délo ci jëlaat dem continuer pour yok sen activité gëna yok liggéey di fàttali yëpp rek li dispositif état la pour pour amorcer jox possibilité ndaw ñi ak jigéen ñi ñu dugg ci économie bi Il y a ñi comptes bancaires qui nit ñi ubbi nañ ko ñi ngi wax tamit ni que nit ñi dañ ñuy wax ci étude bi ñu def ci nano crédit bi ñu bare dañ ñuy wax étude bi génn na ni que nit ñi ñi ngi fay seen nano crédit bi ñi ngi ciy fay seen ndox courant xalé yaa ngi jàngi ñu ngi ciy faju ñeneen tamit ci lu 30 wala 60 000 am te ak yeneen satisfaction yoo xamante ni bien-être la wala nit ki retrouver dignité am aussi ñun DER dañ koy xol muy nek ay satisfaction mais satisfaction yo xamanteni tamit dañuy gëna indil ay enjeux pour gëna mëna mun a satisfaire parce que ñi xaar tamit bari